loolu mën na am lu ci duggaale muy tàngal yaramam di ko feebar beneen bi nga xamante ne moom moo dal jigéenu tey père wax na ko sànq tey déformation yi am ci jigéen ji ku jur benn doom ñaari doom daal di daal di déformé wu dañu bàyyi dàmp yi ñu daan dàmp démb xam nga Safia amoon na fi ay ay ay jamono yoo xamante ne da nga dégg ñu naan mère jaboot mère jaboot yow bi ngay nekk xale da nga dégg ñu naan mère jaboot doon xamoo woon luy mère jaboot alors que mère jaboot moo nekkoon koo xamante ne da daan dàmp ki nga xamante ne dafa wasin dàmp doomam am na nu mu la daan dàmpee dala daan bës sa biir bi ba nga ngelawal ndax li nga xamante ne moom mooy wasin dafa metti mhm. boo ci jógee buñ la defaraatul mën nga fa jaaree amee fa ay métti yoo xamante ne dootu la bàyyeeti ba àdduna di tukki mhm. sa doom aussi buñ ko dàmpee dañuy wax ne fa la ñuy jëlee defar formam defar ay cëram xanaa xamoo awra sax dañ koy dàmp pour si góor ñi mu allongé wu. parce que bu baax. dem na ba ci su fekkente ne dàmpuwul dàmp ba setut lu dul mu xalaat kër docteur dem nu jox ko ñu koy jox mu jeex. ki wasin ki ngay wax nii. ki wasin laa lay wax de. Mhm. nu njafaanal ko. njafaan ay reen na nuy boole ak i xob mhm. togg ko mhm. ba mu ñor baxal ko mhm. ba mu tàng ñoo ñooñu ma leex naan la maire jaboot ay maire spécial noonu yoo xam ne ci dëkk bi nañu nekk wala ci aw gox wala ci aw dund ñoom rek ñoom ñoo koy def ñu ne tund sàngam soo demay fekk fa diw mooy dàmp nangam soo ñëwee mu téela su fekkee wasin wu yees nga mu lay dàmp di la jox ngay naan njafaan muy bës sa koll bi meret mi di génn di tuuru lu ko moy di nga dem di nga ànd ak xet goo xam ne. Hmm. illaa abada dootul dem ci yow te yaa ngi koy jëlee ci wasin. jërëjëf. déglu bu baax li ma lay wax. wala nga yàqu yàqu goo xam ne doo màggataa màggataaleen digg. Hmm. Hmm. ndaxte dàmp ba setut mhm. njafaa nun la wasin wu yees nga dinañ la dàmp dàmp dàmp dàmp ba dëbb kuraay boole ko ak karité diw ko sa biir sumi la dégg nga ba nga tëñu wala nga lëkkaayu tëdd mhm. mu jël ab laaxub cox laax ko ba mu tàng ba leget gi tàng nga tëdd nu jël ko teg ko sa biir bi di ko riic dëgg la muy pousse meret mi muy génn meret mi génn léeg-léeg nga tooba saak mu a gelet génn nga dem changer sër wala nga dindi ngemb waaw ndax booba ngemb laa kii man moom kii kii moom waaw moom daan def mhm. waaw yi yi ngeen di def yi tubaab yi jaay amul woon d'accord waaw ngay gune daal di xaraf nekk ak sa maam ah. soo xarafee ba dugg ci lël bi ba lakk ba génn doon ab bërloot léegi nag ci biir bërloot ba léegi soo nekkul ak sa maam am na nu muy demee su la jigéen yaree sa kuur gi mën naa toll nii dootul ah. gudd loolu laa wax léegi. ndax li tax dootul gudd. Hmm. doon ko war dàmp ak gere su bëy. Ah. teg ànd bi di ko tàngal di nugal sa loxo ba mu nooy nga ko ciy teg di ko ñoddi. di ko ñoddi te doo ko solal silip ndax soo ko solalee silip mu dellu. dëgg da koy solal caaya. Hmm. wala nga bàyyi ko mu def awrey nen muy lang su ko defee moo koy tax a gudd. dëgg mu ne. xaaral maa ngi ñëwaat ci yow soo ñëwee. <laughs> ci maa ngi ñëwaat ci kaa bi. Ah, loolu de laa xamoon démb. maa ngi ñëwaat ci kaa léegi.